coow Sénégal ñaari adversaires yi bokk na ci ñi leen gën a jege. combat bi yëpp coow Sénégal te yàqu ñaari adversaires yi bokk na leen gënoon a jege. kon lomba boobu ñoom ñaar ku nekk camp boobu la nga doon wax ba léegi ku nekk mu ngi dugg ci sa nopp te combat bii moo ñu war a libéré ci combat boobu. ah bii moo ñuy libéré di. diggante soq nag ak franc dafa nekk benn combat boo xam ne nii ñoom ñaar ba léegi ku nekk yaa ngi natt sa morom ci loo gisagut sa morom. Franc daan na ndaanaan bu ne ci làmb waaye dégg guddaale ci làmb ndax jëlagul ku ci làmb soq daan na bu ne ci làmb waaye amagul xaalis ci làmb te daan Franc koy tax mu am xaalis ci làmb mu nekk combat boo xam ni ñoom ñaar jom ak njàmbaar ak jël ku mooy tax ñu gañe ko ñoom ñaar dañuy naxante nii ku ci nekk xam nga lu lay may ndam ku ci oyof doo ko daan ku ci xeexul doo ko daan ñoom ñaar seeni ku nekk da am loo xam ni mën nga ko te sa morom xam na ko te ku ci nekk boo moytu sa mëninu nu moroom ngay jum ci bés ba. déggoo lu ma wax Lamine combat bi du am bëri ci kaw xeex ci kaw la. xeex bu sax la doo ko bëri si. loolu laay nuyoo réew mi maa ngi leen di ñaanal jàmm di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. lu tax nga gaaw a ñàkk Fadam jërëjëf Père Thiam Fallou Fallou da nga posé après tax kaay taxaw nii rek non gars yi dañuy direct. xam nga suñu xarit nga dañ laa bëgg. bon salaamaaleykum ñu ngi nuyu assistance bi ñu fi teew ñëpp mais comme ni ko Babacar waxee léegi vraiment ñu ngi rafetlu image bi bu baax a baax a baax parce que lamb effectivement. rek moom pour nit ñi xam ma. waaw ji di leer amul problème. voilà mais sama xam jugewul ci yow n'est-ce pas leer na wala leeru dégg ma. buñ may xam yow nekkul yow yaa tax ñu xam ma waaw boobu da ngaa teg say preuve moo tax ma ne la kaay waaw léegi dama lay wax da nga may déglu may ma ñëw rek da ngaa teg say preuve moo tax ma ne la Franc mais boobu ma teg samay preuve nga bëgg nit ñi xam la te bëreeg man mooy tax nit ñi xam la Lamine boobu Lamine la yor fu mu dem di xëppoo suuf di baax <laughs> comprendre nga ma leen kii bool ma ko joxee léegi ma feeñal ko xëy na sax sama ñaan dafa nangu parce que ba may boobu may am ay deux combats Lamine ñoom ñoo ne Tyson 2 moo moo gën a tëb Pikine moo gën a coriace yéen leen koy wax waa làmb dangeen koy xool doon ko ma jàpp Tyson 2 ñëpp waxoon Tyson 2 daf may ñëw humilier ma ñëw humilier ko kii moom moom moo ñëw ba ba la léegi lu waral Tyson 2 gën a coriace gën a të ëpp palmarès nga daan ko wëlbatiku naan soq na laa bëgg a bëreel. non xam nga tax. maanaam jàmbaar gis yow. maanaam bul jéem a nax nit ñi soq rek ma déglu yow damaa bëggul nga nax nit ñi nax sa bopp parce que noo daan Tyson 2 mu gën a nekk soq champion. gën ko teg ay preuve. gën ko def lii gën ko def lee nga njëkk a déggoog promoteur man may discuter ak promoteur. soq ah. Sokh da nga may déglu man dama dañ ma teg trois adversaires man ñoo xam bëggu waruma leen tudd sax mais dinaa leen tudd dañ ma tegal Diène Kaïré Moussa Ndoye ak Forza mii keroog ba ñuy tëkkoonte ak Beuz sa kanam Gaston ne bu ñëwee dina ko tëgg man yooyu laa fi doon xaar mais xaaruma fi woon maanaam yow maanaam man yow ñooñu ngay wax noonu man waxuma xam nga ñooñu man tegalum na nga c plan c wax la yow ñooñu ngay lim noonu xam nga dama war a bëre dama ni eh, yow eh, yow maanaam yow boole eh. ma woon calcul bi da ñëw ñi rek déedéet da ngaa ñëw pour xam nga lu tax rek xamal may bañ année blanche laay bañ moo tax du boole ma woon ci calcul bi de année blanche laay bañ moo tax ma du ñàkk boole ci calcul bi de xam nga lan la da may déglu sëñ bi année blanche laay bañ moo tax ma jël la damay dama bëgg nga déglu ma dinaa la woon lu tax ma jël la lii lii maas ci fitu gaa yi moo ci fekkul dof bii toog dof bi day liggéey lii la bëgg. comme yow yaa ngi dégg loolu yow. comprendre nga pour nekk champion waa déglu rek. yaa ngi maas bi. waa déggu moo tax man la moo tax man la lii maas ci ñooñu ba tax nanguwuñ laa jël. Ah. moo fi fekkul dof bii toog man dañ ma leen tegal ñoom juróom sama nijaay gi ñuy toog ma ni ko kii laay jël. te li tax ma jël la jàmbaar dama ni la yow sa wër nga fu ne di ma li tax ma jël la. yow génn nga ci suñu bëree ba pare nga koy xam fu ne nga dugg fa di ma tëkk. kan comprendre nga jërëjëf ñu nekk ci ginnaaw nag nañ dégg ñaari la yi Lamine Lamine xaar Lamine wuy ma kii wër na fu ne toog na média bu ne di ma tëb non defal nànk rek eh, eh, eh, seen TV nga njëkk toog tëb ma bi da ngaa di ndellu ci dëkk bi di di di rëy lamine man su ma amee lu may ndellu déglu dinaa ndellu ci ñeneen mais pas yow nga jël ma dama waa dama naa la ma jël la boo déggee boo déggee ma jël neexoon combat bi du taxaw waaw bu taxawul yow ma xam ne yaa say morom ñu ne fi jaar bëri ndax maa la mën a dinaa la daan amul problème man maa ngi bëri chaque dimanche maa ngi bëri waaw soq loolu comprendre nga moo tax sax champion yi bëri ak yow bëri ak yow chaque dimanche boobu ngay bëri déedéet ak ñi ma daan déedéet koo daan ñi laa jël Lamine yaa ngi sama palmarès kan nga daan ba Tyson war laa jël laa wax Lamine ma daan kan ku wow ku coréance nga daan ba Tyson 2 war laa jël kii démbale li ma ñu ma daan dimbale dimbale leeralal ñu ma daan dimbale ñu ci dimbale leeralal ñu ma daan yow ñu nga daan yow ñi nga daan am na ñoo xam ne déggatuñu leen ci làmb ko limee loxo dem gémmiñ ñi nga daan am na ñoo xam ne déggatuñu leen ci làmb muy kat yow yow ñaari mbër daan yuy bëri ba léegi man waaw ñaari mbër nga daan yuy bëri ba léegi Serigne Bébé Saloum moom. Ndiago Doole Mbaye Tine ñun ñëpp ñu bëre fan lay bëre moom mu ci daan ñaari yàlla moom mu ci daan ñaari yàlla ay lamb baali ma ne moom mu ci daan ñaari ay lamb baali xaabu lamb rek bul nax sa bopp dégg nga dama ni eh, la a jëm benn question la am yéen ak yéen ñaar laa koy boole Franc ak Sokh combat bi mu mel ne combat bi liggéey passé moo ñëwaat commencé ma Modou Lo ak Eumeu Sène ñu gis Modou Lo daan Eumeu Sène deux fois ba ci Franc bi toog daan Tyson benn mu ne kon trois zéro foofu si li ma ko est-ce que yéen ñaar di ngeen ko déwaale loolu peut-être da ngeen naan combat boobu combat yooyu noonu ak combat bi dara waaw gars yi ñu déglu tuuti rek waaw souvent damay dégg damay dégg question yooyu ay kii daa daan kee daan kee kii kii fii kii fii la bokk man pour man làmb dépassé na foofu parce que ñooñu ñu lim ñooñu yegg nañ ba pare te ñooñu seen palmarès la ñuy defar ñooñu dañuy liggéey pour yóbbu seen kër diw daan diw taxul xaalis ba dem ci poosu franc franc li koy may xaalis ci làmb moom moo koy prouvé man li may xaalis ci làmb maa koy prouvé daa dëkk parcelle ma dëkk Pikine comprendre nga yàlla dogal adversaire am nekk Pikine man sama adversaire nekk parcelle mënuñoo ñàkk a loolu moo ñu boole man ak moom man li wér te wóor mooy doomu Pikine la moom doomu parcelle la na ko waa parcelle gunge nekk ci ginnaawam lépp lu kombaa bi laaj ñu ànd ceeg moom man waa Pikine gungee ma lépp lu kombaa bi laaj ñu ànd ceeg man ba le 19 incha allah ñu jëflante ñun ñaar lii lëndëm lépp dina leer incha allah. waaw man parcelle laa dëkk man doomu parcelle laa comprendre nga loolu nag ci làmb lañ ko fekk ay Pikine ak parcelle ak Fass ak yooyu noonu yëpp amul njëriñ maa ngi waaj ñooy tëju ci géew bi nee na luy lëndëm am ma ne ko amul leen luy lëndëm léppay leer. ak man léppay leer waaye léegi bu ñu bu yàlla Babacar posé question rek ñi des nañu kii. waaw salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax. temps faut tamit maa ngi leen di nuyu ah. ñaari mbër maa nuyu Sokh ak Franc maa ngi di jaar di leen bëggee. waaw Franc dama fa si yow laay njëkkee. parce dama déggoo nga wax benn affaire ni Pikine gisoo mbër bu la fa mën a daan foo bëgg naa nga tontu Franc yaa ko waxoon n'est-ce pas dama gis nga ñeme Franc trop trop. dafa am lu lëddee wala dafa am loo foog dafa am loo yaakaar wala gis ay faayam ba tax nga ñeme ko trop pour songu Franc te Franc dugg na <laughs> dugg na Pikine daan fa ngeer bu zap daan fa Tyson 2 ah loolu nag laa bëgg nga leeral ak lan Franc nga ni ak Jara 2 léegi yow soq yow yaa koy freiné pour biir Pikine ak Mbambulaan waa yooyu après mën ngeen wax yow Franc yaa <laughs> soq yaa koy freiné pour mu jeex tey Ah, ah, loolu am pour être. gars yi ngeen dégluwante nag. soq a wax. la nga waxoon ne kala gannaaw yat ma. fi ma ko sampoon ba léegi fa laa koy sampaat. non Lamine man soxla ma lu yomb affaire yi foog mu métti. moom nee na daa bëgg métti man dama ko ciy tegal loolu métti mu gën a jóg xam lu ma bëgg amateur dafa am lu ñu nam ci làmb bëgg ñaari xale yu toog pam pam def def nii pam ñu mitan ba demaat mitan laa bëgg kii kii waxam ju bari ji yëpp kii dinaa ko foo ndax yàlla koy freiné sox déggoo dama ne hmm. Franc mii laa wax maam li muy wax nii barki maam Serap Fall da koy wax pour soulager boppam rek pression lay dégager loolu bugguma woon sax ñu xuus si kàddu boobu mu waxoon parce que buñ ci jaar buñ ci nekkee di wax sax mun na indi yeneen détail mais dama dama ko bëgg a xamal ni ko comme kii li mu wax du cadre na sax daan na kii Pikine wala daan na kële Pikine wala kii champion la te man dama bëgg a nekk champion ci làmb dama bëgg buñ tuddee mbër yi gën a tëj ci làmb tudd ma moo tax ma jël ko te dinaa ko daan bu neexee yàlla. le 19 juin le 19 juin. Mm-hmm. suñu bëree man ak moom ba pare si kàttanu yàlla bu tëddee këram dina xam ne ndekete li ma foogoon ak li am bokkul. nañ yónni yàgg mën nag yàgg maar ñëwal. man sama poche yi mbaa wa rahmatulah ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre liñ leen di man nag li may wax moo naam contribution laay def rek parce que bon waa dinaa poser.